waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi eh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu fil bi moo ngi leen di nuyu eh, di rafetlu taxawaay bi eh, ñun ñii ci fii di wax ñi ngi bokk ci magi Pastef ci njiital coordonnateur Saliou Leye du département Tivaouane ànd ak njaboot gi ci li nga xamante ni moo nekk ci réew mi ñun ñu dëkk ci réew mi amuñu fenn fu dul réew mi kon jàmm rek moo ñu moom moo ñu ñor sunu wax yëpp jàmm rek la ñii ñaan yàlla ki nga xamante ni moo moo jaboote réew mi mooy Abdou muy Macky Sall moom la yàlla jox réew mi mu téye ko ñi ko ñaan mu delloo si xelam njaboot gépp ak njabootam la yàlla sunu borom bi dafa wax yontu yàlla daawuda yaa daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naasi bil haqqi yow daawuda man yàlla man maa la def nga samay wuutuwaay ci kaw suuf waaye li ma la sant mooy nanga nga àtte nit ñi ci kaw dëgg bañ a jéng bañ a jéng loolu nag mooy li nga xamante nii tey moo naqari ñëpp ba tax moo waral lii ñi di ko ñaan moom Macky Sall mu delloo si xelam te xam ni Sénégal desalu ko dara jox nañ ko mu yore fi li mu fi yore moom ci làmmiñu boppam mu wax ne jeexal naa kon jeexal googu na na dem ci jàmm ak salaam bàyyi ñu fi ci jàmm ak salaam ñu seet suñu réew mi kuñ koy jox mu téye ko ci jàmm ak salaam te kii nga xamante usmaan Sonko gis nañ ci moom lu tax ñu topp ko kon sunu yaakaar na ko bàyyi ñu mottali ko lii nag kàddu mbagi Pastef la ci département Tivaouane ci ndigalu sëñ saaliwu Lay ak mboolem mag ñi kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def fi sutura yàlla def fi teraanga ndax réew mi ñun amuñu fenn fu dul réew mi suñu njaboot ak suñu lépp ci réew mi la kon jàmm rek moo ñu jig moom dañuy soxla jàmm ji nag mi ngi ci loxoom nañu bëgg mu delloo si xelam ak ñi ko wër xam ne jàmm mooy ko jig moo ñu jig ñu jafee jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.